xale yi fi ne mën nañu bëre waaye mënuñu xeex mën nañu bëre waaye mënuñu bëre te yaay parce que làmb du bëre làmb làmb du xeex bëre la te yaay waaw daan naa mbay kay daan naa daan naa mbay kay daan naa maam góor gi daan naa Ousmane Ngom daan naa Samba Jaw daan naa Majaw Njaay daan naa man li ma daan kenn xamul nu mu toll loolu nu mu toll waaye nag yàlla may te yàlla muy def lu ko neex day def lu ko neex rek day def lu ko neex rek waaye yéen ñoo fàttaliku te làmb ji fàttaliku wuñ ma maa ngi leen di gërëm di sant di leen xamal ne fi ngeen jëm yéen ko xam yéen a ko yàlla jox. Bambara parce que il a toujours représenté le Sénégal à l'étranger ba pare di indi ay trophée boole koog nag ba tey fi mu toog euh, fi euh, fi mu nekkoon bàyyi na fi loo xamante ni lu mel ni école comme ni ko président Sarr doon waxee defar leen ay école moom jógee na fi tey mais école bi mu ngi continuer di fonctionner loolu dafay nekk loo xam ne dañu war nañu defar lu loo xam ne dina tax kenn dootul foote fàtteete Boy Bambara ci ci Sénégal ndax limu mu fi li liggéey. waaw xanaa di am mettit rek waaw boo xam ne bii euh, niñ koy tuddati euh, kilifa gu mag la si làmb ji euh, mu def làmb ji si lu nekk ah mun nañu wax ne li mu yore si drapeau mun nañu wax ne kenn def kenn yorewu ko fi mu jël si ay titre kenn kenn defu ko fi alors euh, drapeau yi mu jël bari na lool euh, coupe yi mu jël tamit bari na lool euh, boole si champion nekk fi champion d'Afrique boole si tamit nekk fi nu mu tëdd dem si représente Sénégal bitim réew jeux olympiques yi waaw mooy Bambara lu nekk def na ko Sénégal loolu rek lay si mën a xam ne ko mel ni kooku ponkal la si làmb ji kilifa la si làmb ji waaw si am rek di ko ñaanal yàlla rek yàlla na yàlla jéggal bépp bakkaar xare ko àjjana waaw maa ngi leen di delloo njaal di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah yàlla nag moom ci moom lu borom bi la jegoon ci la delluwaat rek waaw eh, ñu koy ñaanal fa mu jëm yàlla na dàq fi mu jóge rek parce que ku génn àddina moom ñaan ko ñaanal njëgal rek njëgal ci la lépp nekk waaw ñoom fa fekk rek ñoo fekk yëpp yàlla nañ dajal njëgalu borom bi waaw parce que njëgalu borom bi lu yaatu la waaw booy bambara eh, am na coo xam ne ñoo ma ko gën a xam man dañoo dëkkoon Grand Dakar man ma dëkk Grand Dakar moom mu dëkk ñaar tali ñu nekk ci làmb ji bokkoon tamit salle euh, gréco-romaine fële ba ca jamonoy reces ak ku ñuy wax Abdou Aziz Lam ak Amadou Kati joob mii ak ñoom Amoura Sarr ñi ñoo fa nekkoon def gréco-romaine li libre ak li gréco ñëw fa doon an di entraîné ak ñun quoi di entraîné ak ñoom Robert mais Robert sax ak ku ñuy wax Arona mu nekk sunu mag quoi nekkoon fa waaw mais bokkuñu woon écrit nag parce que man laa nekkoon moom mu nekk euh, Grand Dakar mais nag ñu seq jàmm ñu tëgg mbapat foofu mbapat moom moo ko yoroon ñëw di ko magal ñu maanaam nekk dirige maanaam di ñu ko euh, saytul mbapat mi daal. Euh, waaw ñun xanaa ku baax dem na ku bëggoon làmb dem na ki tax ma bëgg làmb dem na ki tax ma dugg ci làmb dem na ki tax ki nekkoon sunu idole dem na bi nu nekkan xale bu musaan dem di bëri ji ñun ñooy xale yooyu di taxaw ci buntu kër gi ñu leen di sarax mbiskit yéeg sarax yooyu voilà ñun ci ñooñu la ñu bokkoon mu nekkoon jàmbaar ah jàmbaar waaw loolu nag association la te ñoom am nañ seen association te ñu ngi dañuy jàppalante quand même ah, ay maa ngi mais loolu doyut dañuy xam nga lu ñuy ñaan yàlla nañu yàlla jàppale ba su suñu mujj ñu gérer ko suñu bopp comprendre nga ñun loolu mais ay diw jàppale na ko gouvernement bi jàppale na ko ministre bi yooyu amul li am mooy nanu ñaan yàlla wala ci li ñuy liggéey yàlla dimbalinu ba ñu mën cee am bu ëllëgee lu nu mën a gérer suñu bopp loolu mooy wax bi vraiment man loolu rek laay ñaan parce que sportif yi sportif yi loolu dañ cee yàgg ak artistes yi ku ci màgget rek ñu ne dañ ko aidé nan ko aidé nan ko aidé kii xam na ci dara kii ñu bari moo dox kii am na aide boo xam ne ñëw na ci booy Boy Bambara ay aide ma Diop mii la moo ma ko wax ñu dox ko man ak moom ba moo xam muy première dame moo xam muy ministre de la sante loolu naan la ko bàyyi ministre des sports moom ma Diop xam na ci dara maa ngi lay fay. non li ma wax lenn la rek booy bambara ngi doog a daanu mbër yi daanuwuñ de amuñu defet defet lii la tey ji mooy bi mu daanoo gisaguñ ko ci làmb feebar na taxaw nañ ko ñi ko war a jàppale jàppale na ko génn na àdduna lépp lu ñuy mën a wax ñaanal ko yàlla xare ko àjjana te yàlla teg loxoom ci njabootam première dame Marème Faye Sall la mu ko jox ci sama loxo la jaar ak bekkaay ci kenn lañ ko jox muy faada Diène di remercier Marème Marème Faye Sall ñu indi ko fekk magam toog famem toog ñu jox ko ko ñu demaat mataar ba jox ko ñu def téléton ñu jox leen kon dañuy ñaan yàlla yàlla xare ko àjjana bu ñu wax waxi ku nekk da ngay feebar mais li ñuy ñaan yàlla yàlla may ñu ñu am ku la taxaw taxaw na ba yor këram ñun fekkee nañu lu bari ci moom bu ñu bëggee làmb yàlla ak moom ñun fekkee nañu ay mbiite njaay ay euh, Sadio Mansour Diop De Gaulle Mbacke yàlla na ko yàlla xaara ah, àjjana Gueye Camara gënoon cee tuuti dàq cee bëre ñoom ñëpp ci loxo booy Bambara la ñu jaar Tafa Gueye nga xam ni Fass ak Pikine ñoo doon def mu def ko diggu ñaari tal ñaari ñàkk yàlla def na nag am na souvenir ndax boo déggee dañuy wax koñu Boy Bambara ci dundam la ko amee ñu ba mu génn àdduna ñu ni koñu booy bambara kenn mënu koo dindi. yàlla defoon na amoon naa ñëpp jàmm ñoo bokk benn koñ. sunu kilifa la sunu waajur la li ñu war rek mooy ñu taxaw ko te ñaanal ko yàlla xaare ko àjjana tey doog a xam ne mi ngi doog am mi ngi doog a daanu. bi mu duggee bàmmeel la doog daanu. loolu moom yàlla def na ko yàlla ko yàlla xaare àjjana. leen mosawu rek. wax ne man dafa lu mu booleeg moom. muy ñi yore suma agent communication ñi seere suma ay contrat ñoom seen papa moo doon entraîné Boy Bambara comme ni ma ko waxee tout à mooy El Hadj ak papa Thioune tey ma ñëwoon fii papa mu ngi El Hadj mu ngi ci ginnaaw ñëwoon tey gunge ko ci këram gu mujj ñaan yàlla yàlla xare ko aljanna bi jaay Seydina Muhammad voilà loolu moo doon tàng yi tey daal. waaw nit ku baax ku doon boole rek loolu la ñu xam ci moom wax dëgg yàlla waaw xeex na ba dem nag kon ñun ñi fi des xam nañu téye li ñu am muy làmb ji xam nga pour mu jëm ca kanam daal wax dëgg yàlla voilà mu ngi noonu jërëjëf. ñàkk nañ nit ku baax ñàkk nañ ku bëggoon njabootam ku bëggoon dëkkandoo waaw ku ku laabiroon daal. Hmm. ñu bëri dañu yaakaaroon ne moo la jur ndeke en réalité du moom mooy sa bàyyi bu dëgg est-ce que mën nga ci loolu. waaw kilo yor lu tolloog ñaar fukki at. ñu teg ci say loxo daanaka moo la jur quoi man boog man moom mooy suma kilifa. parce que defal na ma lu ma sama kilifa defalul taxawu na ma lu ma sama kilifa taxawul kon tey jii moom man moom laa xam moom moo ma tette ba àdduna yëpp xam ma waaw kon man moom laa xam moom moo ma jàppale waaw. mujj waxtaan ak moom. waaw moom rek topp seen entraînement la ñuy wax parce que làmb ji kenn moomu ko. waaw chaque jour daf ñuy wax ne ne chaque jour rek mun nga sa wërsëg mu ngi ci làmb góor góorlu nga toog say entraînement yàlla baax na waaw loolu daal la ñuy conseil daal. avant muy feebar avant muy génn àdduna feebar na feebar bu métti nan doon dundee loolu. waaw ñu ngi ko doon ñaanal rek parce que xam nga jaam du xëccoog yàlla. waaw lu lu lu lu sunu borom bu bu bu. sunu borom soxlaa rek jaam day ñàkk waaw parce que gis nga yi fi jotoon xew ku ne tàgge nga ko fi ñaata yoon lañ ko fi tàggee mais tey la ko sunu borom na moom dem waaw waaw loolu yëpp daal mu ngi noonu daal. nan la gisee taxawaayu ancienne gloire yi. waaw ñoom ancienne gloire yi ñoom ñëpp seen taxawaay rafet na ay ñoom Birame Ndiaye ak euh, yeeg ñoom ñëpp ñu ngi fi woon. axlu làmb ñëpp a ngi fi woon parce que daanaka gars yëpp fee lañ yaakaaroon ni la ñuy defee dëj bi. mais fii lañ ko mujj indi fii parce que fii mooy këram mais fee mooy kër cosaanam daal mais xam nga tey tamit mënoo jéggi fii tamit di di déplacer yenn affaires yi daal waaw jërëjëf.